mbokki sama réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bërki démb dégg ngeen monsieur le président la république son excellence monsieur Macky Sall yëkkati kàddu jëmale ci askan wi ak mbas mi nga xam ni moo tàbbi ci sunu réew dégg ngeen ñi fi jaar léegi ay boroomi xam-xam ci wàllu kër docteur feggoog ki nga xam mooy jëwriñ ji toppatoo wér gu yaramu réew mi muy monsieur le ministre Abdoulaye Diouf saar ci lëkkaloo bi mu jàpp ni ñëpp ñoo xam dañuy wax ci wérgu yaramu réew mi war na noo ànd ak ñi nga xam ni ñooy jàngale ci daara ju mag ji muy université ci wàllu nekkin ak doxalinu askan wi mbokk yi mbas maa ngi ci réew mi ci ay anam yu méttee métti di lor ay bakkan di tëral ay nit yoo xam ni ku ci nekk amoon nga liggéey boo xam ni ca nga nekkoon di ci dimbali sa njaboot di ci jimali say bokk ñu àgg foo xam ni ci ndakaaru feebar bi law na fi law goo xam ni ak yeneen réew ak yeneen jëkk war naa am ñu am weneen taxawaay am weneen fabin wu nu war a jël ku nekk boo dee góorgóorlu génn dem sa kër di wutiloo indiwaat ci kër gi boo sañoon booy dellusi di leen ko jox da leen di fekk ci wér gu yaram am ndey ak baay yoo xam ni ñaanoon na nga dund ba yor leen tey jii nga mën a ñëw indil leen lan war a dunde waaye indaaleel jàngoro joo xam ni lan nga leen a jox duñ ko mën a jariñoo kon mbokk mi nga xam ne dangay xëy di daani sa doole yow mi jëm ci bureau bi ak keneen ku mën a nekk ci fànn bu nekk di ci yëngatu war ngaa mën a feggoo war ngaa mën a jël say matuwaay ci li nga xam ni moom la la waa kër docteur wax ak boroom xam-xam takk sa mask wax nan ko bamtu nan ko ay yooni yoon raxasu wax nan ko gel alcoolisé wax nan ko waaye li am solo mooy fexe yow boo ko defee ba sa waa kër di ko def ci anam yoo xam ne day dëppoo ak liin la wax kon boo duggee ci kër gi te di fi joxe boo dénkee ci kër gi tey maam war ngaa mën a sàmm ak sa njaboot santaane leen ko pour ñu mën a sàmmoonte ak loolu ñu la wax mbokk yi dégg ngeen ñuy wax beddi waaye suñu réew dafa baaxoo danga naan Sénégal ñépp ay bokk lañu te bokk du bañ moroomam kon kenn du war a beddi sa moroom beddi bi mën naa jur leneen loo xam ne sa diggante ki nga dendal la duma ci àgg xam ngeen li ci war a aju li nu seetlu mbokk yi moo di ñu bari dootuñu dem hôpital dañu nekk ci kër yi ba loru fa ba yàlla moom leen kon dem kër docteur bokk na wala yëg ci sa yaram signalé ko bokk na ci li nga xam dalay fekk yow waaye fekk ñi nga nekkal fekk say dëkkandoo ndakaaru am na lu fi xew bari na fi ak yeneen gox yi waaye yéen ñi nga xam ni yéen a fi nekk ak nekk ci yeneen gox na ngeen jàpp ni réew mi soxla na doom bu ne ci anam yu ne pour mu mën a am taxawaay boobu fi may jeexale mbokk yi moo di bu fekkee ni feebar day tere juróomeelu ponk lislaam nga mën koo bañ a defi war naa war a tax nga jàpp sa bopp ni war ngaa jël say matuwaay tabaski gaa ngi jub si soreetul ñi nekk ndakaaru yépp di dem ci biir réew mi ku ci nekk war ngaa jël matuwaay ba boo àggee fa nga jëm fekk fa lu mel noonu te ba yóbbu jàngoro ji ci biir réew mi te cëppaandalu sunu woyu réew sunu bàkku réew Sénégal yi dëbu la wax kon taxaw jot na tem ñu taxaw ñun ñëpp ku ci nekk sàmmoon teg li la waa kër docteur wax sàmmoon teg li nga xam mooy geste barrière yi te jëfandikoo li nga xam moom la ñuy wax mbokk yi fii la nga xam ni foofu laa bëggoon a jaarale mooy fii fan dinañ ubbi frontières yi nga xam moo jóge ci jaww ji képp kuy ñëw nanga def loolu waaye li ci am solo mooy lan tere woon démb mooy dajaloo ci dëj yi dajaloo ci takk yi dajaloo ci li nga xam mooy ngénte yi war nañ koo mën a bàyyi ndax njariñ loo fekkee salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.